xamante ne moom mooy euh, en 2012 sénégalais am ci moom confiance def ko président de la de la république moment boobu nag moom vous étiez tout feu tout bois c'est-à-dire euh, avec le PDS euh, ngeen di dal ci ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall benn moment c'est-à-dire cinq ans après ñu gis la nga nangu cette fois-ci ànd ak Macky Sall ce que beaucoup de Sénégalais n'ont pas n'ont pas compris ba xam nga nangu du nangu am na am na loo xam ne lu nangu mais waa base bi xam nga dañuy wax base bi toujours base bi moo combat moo métti woon mais na nga léegi yaayam ñoo bokk dëkk. bu ñu demee ci armeel yi nitu saada nitu makki boo demee ci jàkk yi nitu saada nitu makki boo demee ci ngénteel nitu saaga nitu saada nitu makki foo dem école dispensaire. au fleuve partout foo dem rek ñu sànni nag bon c'était dur à vivre. kon finalement Djidji Lone dafa en fait dafa sende woon. en ba léegi dafa sende ñii les pro Macky ñii les pro Sada Ndiaye pleuve qu'il vente mu neex mu naqari cette cette rupture la man moo ma métti woon. et c'est lui et ses parents qui ont fait les démarches man musuma dem ci moom. on parle de son oncle Samba Thimbo. Samba Thimbo effectivement xam nga moom euh, dafa amoon euh, daay seen kër un incendie soxnam gaañoo ci ak doomam. Mm-hmm. bon on est du même village on est des parents xam nga moom yéenu moo ko loolu bu loolu amee la moindre des choses ma def démarche bi dem jaale ko masawu ko ma dem jaale xaar nag ba euh, waa pouvoir bi dem ba jàll ñoom ki ñëw ja dem ba jàll ma doog a def bi ma demee wax dëgg yàlla il m'a bien accueilli mu fattee dëjam bi mu ne ma Sadio vraiment dina ma métti loolu ki nekk ci nguur gi ba nguur bi jeex te jàppale woo ko te xam naa ne ñun suñu problème Fuuta tant que yow duggoo ci wetu Macky Sall suñu problème yu bare kenn du ko réglé ba léegi loolu la ñu wax d'ailleurs ba léegi loolu la ñu wax ñun seen problème bu fekkee ku mel ne Saada nekkoon na ci wetu Macky am na ay gàllankoor yu bari am na ay taw yu bari am fuuta pratiquement Sada ak Macky daañu ko mën a saafara. parce que mais est-ce que nga nekkoon ci opposition bi aussi nekkul une façon jàppale ko c'est-à-dire di wax li nga xamante ne moom moo am di dénoncer li nga xamante ne moom moo doxul est-ce que loolu aussi c'est pas une façon. jàppale ki nga xamante ne aussi moom moo au pouvoir bi ma nekkee ci opposition bi maa wax dëgg yàlla maa ngi Macky on ne se wax dëgg yàlla il il parlait tout le monde sauf a Sada moi je parlais à tout le monde on s'est une seule fois pas parlé amoon dëcc euh, ci benn mbokk euh, la famille Tall la. bon ñu dem foofu mu ñëw foofu ñu ñëw kooku suñu suñu responsable la woon ñu dem accueil tudd na ma foofu il m'a salué là mm-hmm. en tant qu'oncle waaw mais sinon en tant qu'opposition mënum woon dara ci lu pour mu changer le train de vie d'ailleurs même bi ma ko aussi rejoindre euh, jàppale ko mënu ma ci woon dara parce que il avait son monde il avait ses équipes et les problèmes de Fouta pratiquement c'est aller de Karim en Silla de mal en pis. de mal en pis alors dama lay woon très rapidement euh, ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall booy tirer benn bilan par rapport a seen compagnonnage lan lay lan lan lay nekk. bon man c'est un bilan peut-être euh, comme on dit immatériel moralement je l'ai noonu na naa ñëw jàppale ko. maa ngi ci nekk aussi. Ah? même même ci waa APR yi ah, nga dégg ci lu nekk. on se rappelle bon APR bon parce que ils ma respecté wax dëgg yàlla comme je sais pas dans leur structure. Mhm. amoo ci benn responsabilité ni politique euh, ni institutionnelle donc euh, mënuma mënuma ci dëggalu dara parce que lu ma leen dara ma leen dara lëkkuma seen lëkkuma seen dara bon donc euh, xam nga man bu ñu wax dañuy wax lu leen neex rek. xam dañoo ne mais des ñu doon dal ci sa kaw nag comme ay. Euh, Cissé Lo ñooñu. waaw xam Cissé Lo sa nature liñ la daan liñ la et pourtant c'est mon meilleur sa nature kooku xam nga moom. liñ la daan yàq. waaw mais am na moom mel noonu non ça ne me dit rien parce que xam naa ne meluma noonu. mais sa famille lan la leen doon def ñu déggee waaw la famille. mais pourtant je très bien xam naa famille am a Louga. sa famille la Cissé boobu si Cissé Lo. Moustapha Cissé boobu nga hmm. kooku ak suma ak suma yaay ak suma maamu jabar ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay Aminta Aminta Cissé. Mhm. bu Louga. Mhm. bu Sambaxari Cissé. Cissé waay donc xam naa ko bu baax a baax xam naa ko à Louga xam naa ko a à à Touba. donc am nu loo xam ne góor mënu ko wax man mënu ma ko wax moom nag lu ko neex comme il est comme ça. Mhm. il est libéral il a toutes les libertés toutes les licences mën na wax lu ko neex mais ça ne dérange pas ça ne dérange pas du tout. mais donc comme bilan. non on a on. sa compagnonnage ak Macky Sall est-ce que wàññilu la beaucoup plus que daf la yokkal. surtout sur le non, bien politique. bien sûr bon wàññi na parce que euh, on m'a mis dans le frigo pendant presque sept ans. six on ans on m'a mis dans le frigo. dans le frigo ah ah xam boo nekkee ci ci ay ànd ak nit ànd bi yoo xam amu ci benn responsabilité dañu ne acca nga ne acca loo fu ñu nasee xamuloo fu ñu xam xamuloo lu xew bon loolu moo tax mosoo dégg ma wax. si c'était à refaire. non j'aurais fait parce que li ma ci doon visé mooy defar mbokk defar mbokk moom ci alxuraan c'est extrêmement important. d'accord. ku dagg mbokk moom pratiquement da nga da nga da nga da nga jalgati mhm. da nga jalgati santaane yàlla donc defar mbokk moom mhm. amu ci benn regret parce que ci jamono boobu pour moi li ma waroon def naa ko pour qu'il y la paix la sérénité et la responsabilité au niveau de la communauté moom man biir boobu rek moom moom moom moom laa doon visé pare naa ci amuñu benn problème sans regret. je quitte euh, des amis pour retrouver des frères et des sœurs.